Salut les amis de Sport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de des likes. Merci de des abonnés. Merci également du bail et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois des partages des informations. Inbox sénégalais, pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal. Roukhoukha de Gorgora de Ningle de Diadjofel. Ninek également qui l'a l'hôpital et sécurité du février. Nous sommes bons focus en bok n'y aurait gamme. Ninek qui casse une aussi erreur judiciaire. À Guinée, nous devons l'info yobu sur une bonne guinée l'info. Dès le warden sénégalais, bot n'y de droit Nous sommes une bonne khalena, j'ai fait d'aussi Gaël et nous en avance ensemble dans la magie de Baba et des Sport TV l'actualité en continu gars Actual TV ñu fas yéene waxtaane li nga donc le transfert de Boulaye vers la Lazio de Rome mais également au jox qui ci agression ou Papay Lamine Yamal la mbir yi demee lépp di ngeen ko am léegi jox leen détail pendant ce temps nag gars de defoon on annonce bi des mu Génération Foot day amal li nga donc euh, lii di ay test si weeru août bi donc à partir du 18 août la ñuy premier test yi ñoom nag ko informé nañ ma ne test c'est privé ah, donc ci information yi jox maanaam dañoo

Euh, qui dit Luca Luka Modric le joueur le plus titré de l'histoire de la Casablanca 27 titres hein. donc New York au numéro 27 notre nombre de titres avec euh, le Real Madrid bonne nouvelle pour le FC Barcelone Pedro il s'est entraîné donc il s'est entraîné normalement donc il peut peut-être jouer contre Valence mais là, loi Barça a ngi jéem une ndax pour ko premier match Pour pour deuxième match je pense contre Bilbao mu daal di reprendre l'international et champion d'Europe avec euh, la Roja espagnole pendant ce temps ki donc Luis Enrique Momnak Warnachi wax ci Kylian Mbappé nee Mom, ak bonne chance mais maa ngi ñaan bu ñu dajee ak ñoom bu fekkoon dañuy ak ñu di Luis Enrique daal di wax donc le joueur du Real Madrid ancien joueur du Paris Saint-Germain pendant ce temps nag pourcentage yi xam score 90 moo pour xool ballon d'or bi kan moo pour fi finir pourcentage qui est Vinicius Junior Il est à 50%. Rodri est à 24% de probabilité pour Dieu les des ballons d'or. mais on sait presque à 90% nul que est euh, Vinicius Junior lañ ko dara jox di Oscar Bob la pépite de Manchester City Mon nag day du côté du Barcelone de Barcelone parce que Barcelone l'un des médecins bi nga xam moo dàqa fa ci pour une idée di koy opérer moom nag dina toog ñett ba de jouer Oscar Bob la pépite de Manchester City kii dit di donc Frankie de Jong moo jur côté du Barça parce que premièrement euh, Barça a ba légui kañ de joueur bi opérationnel pour mener jouer loolu ben la mais deuxièmement également ki nga xam ne ba de Jong euh, contrat 2026 la jege way ba léegi euh, wax ou pas Kinak nak di Eric Ten Hag 405 millions d'euros le dépensé depuis ba euh, Manchester City 2022 Kinak nak di Jürgen Klopp depuis 2015 ba léegi ba ba Liverpool 325 millions d'euros Qu'est-ce que le dépensé lo di wone également que non ki di <laughs> Ten Hag il a beaucoup dépensé pour ne rien prendre actuellement comme titre avec Manchester United. Eriksen le joueur donc de Manchester United moom nag fi ni euh, Manchester ay proposition les rares hein, parce que moom ce saison bi il va partir librement moom nag nee na day toog ba contrat am jeex Manchester United mais club yu bëri yu nekk ci Angleterre ak également yeneen championnat yi ñu ngi intéressé aussi moom qui n'a di Boulaye Boulaye Dia maa ngi wax démb ne accord am na salaire Salernitana ak Lazio li desoon nag mooy accord Boulaye Boulaye Dia selon les dernières informations Boulaye Dia nag joxe na accord pour aller du côté du club italien de la Lazio pour nekk un attaquant Boulaye Boulaye Dia l'attaquant sénégalais

ba mu yomb rombee ak xajam nag di doxantu euh, voisins yi nee nañ am ku ko ñaan ñu ko xëpp ndox ci seen euh, fi nga mooy donc seen balcon mu daal di koy dal loolu jur coow coow bu metti nag ba police bi daal di ñëw fi ne nii euh, raisonné ko ne daal di dem ci guddi gi nag mu dem ci parking bi mu nekk mooy fi muy gaari otoom la ko gars yi fekk jam ko ñaari paaka ci dënn ci abdomen donc ñaari paaka coup de couteau ko jam ci abdomen ñu daal di ko yóbbu hôpital en urgence démb maa ngi leen wax naan mi ngi urgence ñeen ñi ne sax ñibbi na këram waaye information mu ji am mooy ma ngay hôpital ba léegi kaawam dafa xawoon grave ba dirigeant Barcelone yi demoon fa nga hôpital ba xool situation nag na stable kaawam mujjee na stable mais dañ ne na fanaan hôpital fa la mais pour ñu daal on koy def en observation pour hol situation l'aider nan lay demee Lamine Yamal nag Barça da ko pour mon bañ a ñëw entraîné tey mais ñëw na entraîné il a reçu le soutien de l'équipe et tout papam nag ñaari coup de couteau lañ ko jam ci dënn loolu fi mu ne enquête bi moy wey japp nañ ñent ño xamne japp nañ ñom dal ñoy présumé coupable man ñom lañ japp ni tuumal nañ ne def lu ni mel donc li dal mo amone ngeen gis image yi nii lii ci suba si la avant ci ngone si ñukay fekk fa nga mo donc ci parking mu gar otoom dal di koy jam paaka les amis lii moo nekkoon information ñu leen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir ngeen wéy di like wéy di abonné bu leen fàtte nak abonné suñu chaîne Baba Show bi gën ñu jappalé gay yi ci cross notification bi ngir jot vidéo partager ko TikTok bi nag eSport TV 1 la Instagram bi eSport Inter su baaxee ci yéen la bone ci ñu la gars yi jaa ngeen